Kayma voilà Kayma ngembo ngemb lu xonk li Mbaye Feugueleu la moo ñëwoon ginnaaw Mbaye Kayma Mbaye Feugueleu Kayma ñu ngi ci Mbaye daw na jël Mbaye Feugueleu Kayma noo ngi ñoo ngi ci Leewtoo ga Mbaye Fagala Kayma ak am fit ci kanamu nit ñi lay aw caxabal daan na ko toogagule daan na ko daanagul daanagul o oh, bëre bëre nañu résistance ah way xabal encore mais dafa dëgër cette fois-ci nu mu def daanu daanu placement garde normal fausse garde attention remise mais Aliou Alizé li muy génne lu muy lu muy rocc la nit ñi Aliou Faye Alizé waaw mais ki muy def nii bu nga remise nga toog Alizé Alizé mi est-ce waaye toole yamul rëgëj rëgëj xeex ah Ali Ali Faye daw na génn mais Ali Faye mais est-ce que du ragal oh mais Ali Faye li may am doole yëpp ah dafa mel ni ko ragal dafa daw dafa daw ah, ah, xeex bi xeex bi baaxul attention ma remise nañ ko jël nañ ko jël nañ ko Wally ban xeetu song la xam ah daw ko laaw dañuy kërti kërti rek tegal 16 la wala mbot la tegal 16 wala mbot tegal 16 wala mbot moo ko sut moo ko mbër yi nañoo mën bëree faxat na ko faxat na ko ñu ngi ci suuf ñu ngi ci suuf xale yaa ngi bañ Alioune Faye Alizé normalement nii mu toll ak loxo ni mu toll waroon na mën remise waaye xale mënuñoo xeex mënuñoo xeex xale yi mënuñoo xeex liggéey ñu daan nañu Alioune Faye daan nañ ko mais coup perdu Alizé daan na Alioune Faye oh hélas hélas xoolal Aliou Alizé waaw ah oui dañoo fournir lu bëri ci effort c'est normal ñu noppaleeku. daanaka jël bi rëy fu ñu jëm sirip résistance maa la ko wax entraînement daal du fen dooraat na ko ngara dawaat na jël. Boy Waar door na uppercut Boy a ngi door uppercut Dara Boy Waar faxat Bambara ngeen jàkkaarloo ah Ngara tàkk na ci kawam eh waay. bu génn saako yi bu génnaatee am trois avertissement Ngara ñu koy forcer mu génn saako yi génnaat na saako quatrième avertissement jeex na jeex na jox nañ ko victoire Boy Waar am na victoire waay sëñ bi. mais ginnaaw pitax yi pour lan la. waaw pitax yi gën dal jaamu la rek poj la quoi. billaahi. bu mu toll nii pitax la euh, la ci euh, kii bi bi. cumu bi nii eh, eh, xam rek mooy loolu quoi. ay tegtal la ay tegtal jarul wax quoi xam rek mooy loolu. Ah. billaahi jarul wax. bu mu toll nii yor affaire yi nii am nga confiance. mais est ko dañuy soit dañu koy door mu daanu. yaa ni Brisinaire dañ koy door mu daanu bu dul sëñ Bamba. door mu wàcc. après combat bi danaa ko tegaat ne nii. Baye Fall Brisinaire. waaw matul 1000 kees day jug. nga yaram bi wéet na. garde normale la ñu jiital ñoom ñaar ñëpp. réparé Tidiane Faye numéro 2 réparé ñu woon ginnaaw xaw a xees Tidiane Faye la ñu jàkkaarloo waaw ah, mais réparé daw nañ ko jël sonk bi sori na sonk bi dafa sori Madou da nga xeeb Madou ko xeeb nu koy def da ko xeeb da ko ëpp doole da ko xeeb Tidiane Faye dafa xeeb réparé mu ngi pompé moom Tidiane Faye da koy pompé da koy forcé Tidiane Faye réparé na ko wër na ko nomb da ko doole doole lii xoolal lii doole Saloum nee na dañuy delloo avancé bu ko jël ko ngeen bëri la 5 moo ko wax mi ngi kooku Siteu Saloum mi ngi nii Western moo delloo moo delloo avancé Western bu mor ko def waaw man duma Western yéen a bokk écrit mais duma moom sa poulet la duma moom sa poulet la ñu benn man maa xeexal sa bopp kii man xaw ma Siteu Saloum ah ndaw na ndax am na dangar ci biir bu ndaw Papa Sembène ah daw na koo jël mbaat daan nañ ko wala njaax njaax njaax wala wala lu arbitre wax njaax wala ah way njaax njaax daan ko bu ndaw daw na koo Boy Diouf Boy virage Boy Diouf Boy virage Boy Diouf moo ngem lu orange li Boy virage moo ngem moo ngem lu ñuul Boy virage touché na ko léegi ah ouais daf ko fay tagaat daf ko fay tagaat daw na ko jël Boy Diouf daw na jël Boy virage bàyyi waat na ko Boy virage Boy Diouf mu ngi koy daan na ko daan na ko doole Boy Diouf daan na metti toj na nen bi tojati ko joo mu nge moo ngeen bulu xonk li mu ngi jàkkaarloog Sa Thiès mi nge moo ngeen bulu weex li mu ngi ñaan moom Sa moo ngi bëgg a niroo turandooram mbaa ni turandooram di bëree lay bëree eh Sa Thiès joo zoo wala joo mi nge moo ngeen bulu xonk li waaw ah waay moom def na ko oh résistance ah waay résistance joo di percute rokkos suuf de la part de Sa joo fayu na Sa Thiès ñu ngi koy faaxat faaxat nañu joo Sa Thiès diis Sa mi mbir la attention excès de confiance de la part de Sa door na léegi moom Sa Sa Thiès joo daw na ko tase nañu ci suuf la ilaha juwal Sa Thiès joo ñu ngi si jàppante nga ci suuf dóor tax na ko tax na ko fu ñu jëm Sa Thiès takk na ko caxabal nañ ko Sa Thiès daan na ko ah présentateur bi allez euh, salaamaaleykum waa Equivox TV. Equivox TV. waaw ñu koy wax Vox Arena. tey dañoo ñëw ci làmb ci Grand di la laaj ci diggante Brise de Mer ak Bulldozer. bu Kër Massar bu bu waaw bu Kër Massar Kër Malika ñu lay laaj combat bi ak ñoom ñaar ak Bulldozer tournoi bi mu jóge woon daan euh, Mbagne Kayre daan Bac Seras numéro 2 daan booy Boy Barñi bu écrit Boy Niang ñoom ñaar ñu boole leen kii jóge ci dynamique de victoire kii jóge ci ay tolof tolof noo gisee combat bi tey. moom mi combat bi légèrement. Arena. waay. noo gisee combat bi tey. waa mais ñoom ñaar. waaw tey moom léger favori pour pour pour bulldozer. waaw waaw moom mooy favori. moo am avantage. waaw mais moom naa ko moom avantage. ndax ndax moo moo moo mm-hmm. moo gën a taxaw moo ko sut. diggante ndaamalu digg doom la. voilà ak ak njool. waaw bu digg doomu. waaw kon combat la boo xam ne. Mm-hmm. en daal léger léger favori moom mooy bulldozer. mais combat rapproché la. te combat bu gaaw lay nekk. combat bu gaaw lay nekk. jërëjëf grand boobu waaye combat bu gaaw lay nekk. Mbaye Tine diggante prise de mer tey ah ak bulldozer bu général Malika dëkk Malika noo gisee combat bi tey pour mu gën a gàtt. waaw mais en tout cas loo mën a dégg combat espoir la ginnaaw bu ma néew chute bi nuyu sama rakk yi nga xamante ni ñoom vraiment ñu ngi bay seen waar ci làmb ñoom Cheikh Omar nga xamante ni ñoom. xëy na seen xam-xam ñëwuñu pour jaay xam-xam fu ñu fekk rek dañuy bëgg pour jël si ñun tuuti mais loo ci mën a dégg combat la boo xamante ni ñaari xale yëpp entraîné nañ parce que ku xam bulldozer xam ne ndaanaan la parce que ay moromam rek la bëreel bëreegul ak benn magam adversaire bi tamit boo ko xoolee bëreegul ak benn magam comme ñaari xale la yoo xamante bu ñu bëree dina neex te keroog bi ma gisee seen entraînement vraiment ñoom ñu ci forme ne bëre dina am te bu wala ku ci ëpp avantage kan nga koy jox mbay. non man instant yi nii cinquante cinquante la parce que ñaari xale yi boo xoolee dañoo bokk système de bëre. yaakaar nga ko. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp dañuy riñaan. d'accord ma de. non déggoo de ñoom ñaar ñëpp dañuy riñaan parce que seetaan naa seen i combat. xam nga ndaamalu digg dóom la. déggoo li ma la wax kooku li ko intéressé si bi ak li ko si arrangé. waaw mooy tey jii mu gëdd xeex si kaw ba pare parce que boo xoolee état bi mu indi xool avantage bi mu yor ak taille bi mu yor ak gabarit bi mu yor di bëreeg ndaamalu diggu doom nan dem ba ci kanam. xam nga maam les loolu ngay wax noonu loolu yow yaa gisee noonu mais ñaari xale yëpp dama leen suivre fii si stade ma xam li ñuy bëre te xam ne ñoom ñaar seen combat dina jaajëf Mbaye. jaajëf lay doon. nañ màcc ci taxaar gi rek. a màcc ci taxaar gi. fu mu toll nii ba <laughs> voilà mbokk yi ñu ngi taxaw ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom moo fiy toogal Brise de Mer Safia maa ngi seet. maa ngi nan ngay indee sa mbër. non dal rek ak euh, def na li mu war a def bon ngemb na ànd ak mbokkam bis mooy di ñaan yàlla may ko ndam duñ koy yabe mooy mu dal xamante ne nii mbër la xale la avenir nag bu dal. Ah, gis nañu ni moom taay bi dafa xaw dafa gàtt par rapport ak euh, euh, bulldozer bi muy bëreel. mais loolu du si dara. du si dara taay su ko jot dañ koy wax si bëreel. c'est c'est bien beau bien bon nit ñi dañuy bëgg mbër mu gudd rëy mais li am solo mooy am technique am doole am technique ba pare am doole parce que doole nekkul si taay jërëjëf. voilà alors nan nan nga ko waajalee. waaw comme ni nga ko daan waajalee rek mu ñëw di am ndam ndax euh, entraîné na box na contact na doon na def ay séances yu bëree ah. bu baax a baax surtout ma contact. dafa contact te xam naa bu soobee yàlla bu combat bi commencé. di nga gis ni liggéey est-ce que du xeeb est du ko du xeeb adversaire am ak ni mu gàtteeg yooyu. soo xoolee ci loolu laa xam naa ni booy doon contact ak kii quoi. te xam naa ni tamit moom. pour bu jàppee booy bi da koy lekk. sànq ba léegi ci loolu laay wax ak moom na def nag. bu bañ a def excès de confiance quoi. voilà foofu laay wax ak moom sànq ba léegi. waaw merci beaucoup jaajëf. Safé maa ngi ziar. dellu ziar. combat bi kan nga gis ni moom mooy favori bi Bulldozer ak Brise de Mer. su ma doon joxe favori nag Brise de Mer 2 laa jox favori ndax boo xoolee Brise de Mer mbëri qualité yi mu daan fekku ci Bulldozer ndax Brise de Mer dafa daan ko mel ni na ko yaa daan bébé bis mi. ba vrai que nag Bulldozer gëj na daan mi ngi digale 4 victoire. bi mu fi mujj diggante ak alliance biram la mu daan ku mel ne mañu kere daan booy barñi ci dynamique de victoire la toll mais keneen dafa jógee ci defet bi mu fi mujj sal bool moo ko daan muy brise de mer kon brise de mer warul daanu tey tey dafa war a def foofu gañe loolu rek moo dana métti bu nu mu métti gëm naa ne dinañ xeex grand combat baa mbay guy la la la Bulldozer moo ñëwoon ginnaaw ñu jàkkaaroog Brise de Mer Brise de Mer la ñu jàkkaarloo mooy Ndamali ñu jàkkaarloo ki nga ne mooy Bulldozer Bulldozer day wàcc tolloog moom Brise de Mer Bulldozer Brise de mooy grand combat ñoo ci grand combat bi Bulldozer Brise 2R brise de mer Ndamala ak Ndiol dafa bëgg mu siggi moom brise de mer dafa bëgg Bulldozer siggi Bulldozer ñëw na brise de mer Bulldozer ah way loolu la bëgg mu siggi mu daw jël ko xanaa bu ñu jàppante mu jeex diggante Ndaamalaat Ndiol Bulldozer Brise de Mer Brise de Mer Bulldozer Bulldozer mooy féete sunu càmmoñ jiital pied droit bi jàppante nañu moom Bulldozer ah oui hypercure la ko génnee moom Brise de Mer Brise de Mer mi énervé na ko bulldozer a ci kawam daw na ko jël wëlbati ko daan na ko daan na ko daan na ko arbitre nee na jeex na arbitre nee na jeex na